asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu ñuy fàttaliku seen maam ju tedd jooju ñu fexe ba boole ci fàttaliku gi jàngat jéem a dolliku ci sunu wàllu diine xool li soxal njaboot gi ñu fexe ba jël ci ay bind loolu lu am solo la ndax mbooloo fu ñu daje rek luñ mën a waxtaanee war nañ caa boole lu leen gën a rafetal seen diine ak seenu nekkin seen digganteeg seen boroom waaye seenu nekkin seen digganteeg seen moroomi jaam ñu sàkk woon ñoom nag ci ma waxtaan ci tomb bi sëriñ Mourtada junj léegi muy muñ muy tomb boo xam ne jàpp naa ne am na solo ñu di ko waxtaane jamono yëpp ak barab yépp ndax day li koy sabab barab du ci mucc jamono du ci mucc waxtu wu nekk nit ñi di ne ci loo xam ne laaj na muñ kon di ko leeral nit ñi lan mooy muñ leeral leen it nuñ koy defee ak lu mu laaj jàpp naa ne yu am solo la kon tomb boobu mbokk yi xalaat ba bëgg ñu waxtaan ci jàpp naa ne ci jamono ju am solo rawatina waxtu wi nga xam ne nii ko sëriñ moto daa waxee euh, nit ñi guddeeg bëccëg ngi jàmbat ay xat-xat ay tiis ay metit ay jafe-jafe Serigne Abdoul Khadir Diop aaye bi mu ubbee barkeeloo ko ci njàng moom solo mi wane na ne loolu moog dund nga ñoo ànd ndax borom bi moo wàcc ne danaa leen nattu dinaa leen nattu ci ay xeeti nattu yu wute waaye su boobaa nag ñi nga xam ne ñoom li nattu bi laaj sama diggante ñoom dafa nañ ko borom bi tudd na fa ñeenti ñeenti xéewal yoo xam ne yàlla dana ko may ñi muñ te mooy li mu wax la yow bashiru saabirina alladina ida asabatuhum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa rahma wa ulaika hum muhtadun muy lu am solo loo xam ne kon jàpp naa ne mat na waxtaane moo tax incha allah danañ jéem a leeral lan mooy muñ solo sumu am xeeti muñ yi am yan la waxtaane it luy dimbali nit ci mën muñ ndax léeg-léeg nit bëgg a muñ waaye mu jafe waaye am na loo xam ne nag xëy na bu ko xamee te bàyyi ko xel mën na ko dimbale ba mu mën a muñ muñ gu rafet waaye waxit yi nga xam ne danay gàllankoor nit ki ñaare ba du mën a muñ ngir mën ko moytu insha allahu taala ci tomb yooyu lañ bëgg a tënk euh, waxtaan wi xëy na di leeral lan mooy muñ jàpp naa ne lu metti walla am nattu moo gën a yaatu sax lu metti am nattu la ñuy muñ ndax am nattu nag dana neex dana naqari waaye muñ daal mooy dékku am nattu saa bu yàlla wàccee ci sa kaw am nattu nga dékku ko la mu laaj lépp nga def ko te bañ a saalit bañ a jàmbat bañ a taxaw taxawaay buy wane ne bégoo ci nattu bi wala neexu la baat bi boroom xam-xam wax nañ ci lu bari imam Junayd mi nga xam ne mooy cheikhu suufiya daf daan wax ne muñ mooy tajarruur maraara miin gayri taabus daf ko daan misaale daal ñu jox la naan gu wex xat nga naan ko mu jàll te feeñut ci saxar kanam kenn xamul ne li nga naan neexu moom noonu la doon misaale muñ ne mooy tajarruur almaraara min gayri taabus xam nañ ne nit boo jàkkaarloog nit léeg-léeg suy naan lu weex mbaa lu naqari ca ras naqar kanam bay def rek ci nga xam ne li muy naan neexul imam Junayd nee nag muñ nag mooy nga naan lu weex te feeñ ci sa kanam kenn du xam ne li nga naan lu weex la waxin la ci ne lépp lu wàcc ci sa bopp ci lu naqari bu mu feeñ ci yow bu nit ñi xam ne aw tiis dal na la loolu genn anamu leeral la ci eh, imaam Jurjaan yi daan wax moom ne muñ mooy bàyyi jàmbat metitu musiba njàmbat loo xam ne danga koy jëme ci kudul yàlla tarku shakwa min alamil balwa ila gayrillahi l mawla natt bu agsi ci sa bopp doo ko jàmbat kudul sa borom imaam Jurjaani neen loolu mooy muñ waaye Ibnul Qayyim tënk yooyu wax ne moom muñ mooy nit ki téye bakkanam ba bu aw tiis amee du tiit du jàq du jaxasoo téye aw làmmiñam ba du jàmbat téye ay cëram ba du ñu jaxasoo fu moomu tënk na ne muñ faw yaramu jëmmi nit ki am xelam ak xolam da ci jeexital am na ci wàll aw làmmiñam am na ci wàll waaye cëram yi ci des am na ci wàll bu la aw tiis dalee sab xol na bu mu jàq bu mu jaxasoo bu mu tax nga fàtt yàlla waaye saw làmmiñ bu mu wax lu waxul waaye say cërit buñ daf luy firndeel ne yow mii dangaa jaxasoo ñu bari ci nit ñi bu leen aw tiis dalee njëkk seen làmmiñ di ko wax soo jàkkaarloo ñoom rek xam ne dara dal na leen loolu jàmbat la yoggooral ku la seen yërëm la léeg-léeg sax nga yokk ko ba mu ëpp ay loxo loolu xeetu jàmbat la imam xay imam nee na bokk na ci muñ say cër bu la aw tiis dalee bu cëri yëg ne tiis dal na la bu nit dajee yow njëkk nga koy wax dara mun na xanaa dara daa dal am na ci nit ñi noonu la ñu jàmbate duñu wax ci seen làmmiñ waaye seeni cëray wax nañ koy def nañuy doxeek nañ koy yëngale boo jàkkaarloo ñoom rek jàpp ne am na leen dal loolu ci xeeti jàmbat yi ñuy tere ci la bokk ab julit bu ko awtis dalee lu mu man war naa fexe ba ay cëram du tee nam waroon a doxe noonu lay dox aw laat na ñimit bu mu jàmbat jëme ci ku dul yàlla su ñuy seetlu nag ñun ci sunu dundin bokk na ci li ci gën a fees jàmbat daa bokk ci sunu dundin jàmbat léeg-léeg sax ñu di ko def te duñ ko yëg ci ay barab misaal ba ma ci joxe mooy ñun bokk na ci aada yu rafet yi am fokk jàmmante waaye sunu jàmmante yëpp njàmbat la sunu jàmmante yëpp njàmbat la fi ne nii nit ñi buy jàmmante buñ dajee lii lay wax naka def naka tàngoor wi naka tàngoor wi bu seddee nga jàmbat sedd bi bu mbooyee moom ngay jàmmante maanaam nu jamono indi rek noonu ngay jàmmanteeg nit ñi loolu mooy yaa ngi wane ne ànduma ci neexuma boo dajee ko xam nag boo ko jàmbatee naka tàngoor bi dalay wax ne la alhamdulilahi ala kulli xaal bu seddee noonu ndax ab julit lool la war a wax alhamdulilahi ala kulli xaal ak lu mën a xew ak lu mën a ñëw maa ngi sant yàlla ba ci ay barab yoo xam ne sax ñun dañuy jëfandikoo njàmbat te yëguñ ko te bàyyiwuñ ko xel masalan ay xew-xew ñaare bu amee nii ba jàll bokk na ci li nit ñi di jàmmante buñ dikkee di wax ak yow mooy ana gan ñi mbaa ñi ngi wàññiku loolu jàmbat la léeg-léeg gan dëkku sax ruus moom itam jàpp ne kon dafay ndekete yi yàkkamte nañ mu dem gan lis da ko dafa rëy ci lislaam loo def ci moom yiw la léegi nga di ko jàmbate ne mbaa gan ñi wàññiku ñi ngi wàññiku yooyu yëpp nit ñi dañ ko wax seen làmmiñ duñ ko yëg sax waaye ci luñ tàmm la ba noppi kon mel na ne ñun bari nañ loolu lu ñu jàmbat donte dañuy foog ne kenn jàmbatul koo laaj ci ñun day wax ne mi ngi muñ mi ngi muñ fekk ay cëram muñut aw làmmiñam muñut ndax waxtu ne mi ngi yëkkati kàddu yoo xam ne bu muñ meloon ni mu war a mel kàddu yooyu du jóg kon jar nañ bàyyi xel waxi Ibnul Qayyim jooju mu ne mooy sa bakkan bu mu tiit saw làmmiñ bu mu jàmbat waaye say cër buñ jaxasoo di wane ne am na aw naqare wala tiis wu na ci yow muñ mooy xol bu sax tartar bu ñëwit sab xol sax dëgër mel na mu war a mel nangu koo dékku jëm ko attan xam ne borom bi lu mu teg nit ku ne attan na ndax wax yàlla du tuxu te nee na laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaaha saa bu la tegee am nattu xam nañ attan nga nattu bi kon léegi nag gore ak muñ ko moo fa des walla nga ñàkk gore di ko jàmbat te jàmbat yi amul solo ndax du soppi dara ci dogal waaye nag li ëpp solo foofu ñu war ko bàyyi xel mbokk yi mooy muñ gi yàlla soxla ci jàmm ñi mooy bu tiis wi wàccee ci sa kaw ca saasa nga jëfandikoo muñ gi lislaam du rafetlu yàlla bëggut jàmm boo xam ne day jàmbat ba jaaxle dema dem ba amatul fu mu jëm mu door a wax ni maa ngi muñ moo tax yu yonent alayhi salaam daa waxoon soxna soo soosu nga xam ne da koo fekkoon ci armeel muy sëgg di jooy yonent ay salaam ne ko muñal soxna si ne ko toppal fële li la daal daluma wala daloon doo doo dooma dooma dooma doomu muñ loo jàmbat jàmbat ñaxtu yonent bi bàcc ko fa am genn ku ñëw ne ko ndax xam nga kii fa ñëwoon loo ko wax mu daal koy nett li mu wax mu ne ko xanaa xamoo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxna sa tiit nee na ñëw fekk yonent di këram daan na ko xaw ma ne woon yow de waaye muñ naa léegi ci la ko waxe woon ne ko innama sabru inda sadmatil ula ne ko bu ñuy wax muñ nag mooy tiis wi ca xuyyu di njëkk ja ba tiis bi ne xuyu ci sa bopp ci saa sa rek ngay xam ne ci yàlla la jóge yàlla la ko mën a teggi nga daal di delloo ko ci yàlla waaye waxuñ nga jàmbat saalit ah daf lu ne ba ñëpp yëg ne yaa ngi ci jafe-jafe nga door ne ah maa ngi muñ boobaa danga ñàkk pexe waaye muñatoo kon baax nañu bàyyi xel mbokk yi ne muñ gi lislaam bi soxla ci noonu bu ko ay jàmbat jiitu bu ko ak jaxasoo jiitu waaye su teesi wàccee rek ca saasa nga daal di yëg ne yàlla moo la ko teg moom rek moo ko mën a saafara loolu la borom bi soxla ci jaam yi euh, mbokk yi lu am solo la lu am solo la ci dund doomu aadama ndax yu baree bari bokk na ci yi mu bëgg a wax ba ci jiitu mooy ndigalu yàlla yàllaa ko digal ay jàmm moom mi leen di tegi nattu di leen muñloo te wax ne ku muñ danaa ko bégal kon moo digle te lépp lu yàlla digle na yiw la buñ gisutoon wenn yiw weneen wu ci nekk lu dul ne yàllaa ko ñu ko digal rek kon ñun jaami yàlla yi ñu war a fonk muñ ndax xam ne sunu borom moo bëgg kuy muñ te buñ delloo ci alxuraanul karim ak sunna si yonent bi danañ fekk fu baree bari yàlla di digloo di digal di digle muñ wax na ba tey yonent bi wasbir wasbir xatta yaxkuma allahu wa huwa xayrul xakimin wasbir fa inna allaha la yudiu ajra almuxsinin wa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma aaqibtum bi waaye wala in sabartum la huwa xayrul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah aaya bare bare ci alquran yoo xam ne yàlla da cee wax yonent bi te lu mu digal yonent bi dafa jaar ci moom waaye ci xeet yu ñëpp la jëm si mooy muñal li lay daal ci aw tiis ak i naqar muñ ko kon ndigalu yàlla jullit bu ne daa war a boole ci ak dundam xam ne dama war a muñ ni ma julli ak woor waree su waxtu julli jotee lu ma jàppoon ma bàyyi ko noonu la ma waree it su aw tiis wàccee ma muñ ko su ab nattu dikkee ma man koo dee ko muñ ko kon bokk na ci ay njariñam ndigalu yàlla la te lu yàlla digle lu ne yiw la waaye bokk na ci njariñ yi wane ne muñ am na solo mbokk yi ngànnaay la ku gëm yàlla dëgg-dëgg ngànnaayam mooy doon muñ lépp lu muy sottal ci muñ la koy sottal ndax ñun ñëpp xam nañ ne ci àdduna amul kenn ku fiy sottal dara te ak muñ jiituwu ko lépp lu ngeen fi gis muy lu jag amal njariñ nit ñi ka ko sottal muñ gu mettee la ko boole xoolal ab baykat buy jël gerteem goo xam ne léegi léegi mën na koo jaay am ci xaalis lekk mën a muñ a tax mu jël gerte googu dóor ko ci suuf di xaar ñetti weer mbaa lu ko ëpp dool ko mën a jariñoo waaye muñ googu lu muy jur su ci su jëloon benn bu ko solee dugalee ci suuf muñ ko muñ muñ njariñ lu teew li bu demee ba ca kanam dana ci jariñu lu lu lu ful loolu ay yoon yoon loolu misaal la ci ne li wolof di wax ku muñ muñ dëgg la waaye su yàkkamti woon ne gerte gi léegi léegi mën naa koo jaay am ci nangam su boobaa du am alal li baykat bi am du ko am kon baykat muñ a tax muy peese ay bërigo yu bari di ko jariñoo yi ci des yëpp ci dund gi loolu misaal la ci lu ngeen gis rek nit sottal ko muñ na ab diggante ay njariñ yu teew ba tax mën ko jar kon ku mënta muñ du sottal dara ci àdduna kon muñ am na ñeneen ndax ngànnaay la loo xam ne boo ci sukkandikoo insha allahu taala bunt booba pëgg da moo taxoon borom bi wax ne yaa ayyuhal ladina amanu sta'iinu bi sabri wa salaa ndax inna allaha maa sabirin lépp lu ngeen di sóobu te bëgg ca am ndam na ngeen dimbandikoo ñaar muñ ak julli ndax sooy julli fonk julli di rafetal sa diggante ak sa borom dana tax mbir yi jàpp ci yow waaye dana tax mbir yi woyof ci yow borom bi kon na ngeen dimbandikoo ñaar yooyu te xam ne képp kuy muñ yàlla mi ngi ànd ak moom te ànduk yàlla mooy ànduk ndimbal ànduk wattu ànduk sàmm ko yonent alayhi salaam mas naa wax ci xadis ne yéen nit ñi bu leen di mébét dajeek seeni noon maanaam bu kenn ci yéen bëgg bëgg a yi bëgg a xare ji waaye saa lu yàlla nattoo ba xare dikk nag boo agsee na nga muñ laa tatamannaw liqaa al adu wasalullah al aafiya waaye nag fa ida laqitum fa ida laqitumuhum fasbiru loolu la ci tegoon kon yonent bi alayhi salaam feddali na li alxuraan doon woote di woo nit ñi yi muñ ay nattu yu wàcc seen kaw di muñ ay nattu yu wàcc seen kaw Euh, kenn ci saxaaba yi ku ñu wax xabaab ibnul arat radiallahu anhu nee na mas naa dem ci yonentu fekk mu ne ci kaaba ga tëdd fa nee na ma ñëw di ko jàmbat ne ko xanaa doo sàkku yàlla dimbale ñu xanaa doo ñu ñaanal yàlla jamono ji naqari na suñuy noon ñu ñuy sonal ndax doo ñu ñaanal yàlla nee na yonent bi alayhi salaam ne ko yéen day ñeneen fi jiitu woon daa nañ ci jël kenn ci ñoom gas am pax dugal ko ca jël am si xar bopp bi ñaari xaaj di daggate yaram wi jël ay ay ay paaka ak i ak di daggate diggante yàpp wekk yaxam te du tax mu dellu ginnaaw du tax mu daw ci diineem du tax muñ salim ne ko waaye yéen da ngeen a waaye li ma la mën a waxal bay boo ngi muñ te xam ne mbir mi may wootee yàlla dana ko mottali dana àgg fi mu war a àgg noonu yii day gàllankoor seen pexe yépp dana na sax nit dana jóge sanaa di dox ba xadra mawt te du ragal ci yoon yi ku dul yàlla lenn lu koy kar du dajeeg moom te diggante bi muy wax ci jamono yooyu ab àll bu sori la woon boo xam ne ba fi mu ne nii sax dañuy wax ne sanaa ak xadra mawt seen diggante jege na ah, juróom-ñeenti téeméeri kilomètre ci jamono yoo xam ne lu ñuy war waaye amutoon àll bépp la ndam këris loolu mën na la fa fekk yonent bi salaam ca loolu ci ay xar baa xam la bokk ndax booba la waxoon ne nit dana dox diggante bu soree noonu te du ragal dara ci yoon bi waaye da ngeen a yàkkamte kon ñu bàyyi xel baax ne yonent bi salaam ak gaa ñu baax ñëpp yàgg nañoo muñ loo jàng Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne ci keppaaram lañu nekk radiyallahu anhu wa ardaahu anna ñëpp xam nañ liggéey bu rëy bi mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko lislaam waaye lépp ci kaw ak muñ la ko liggéey ay nooni yàlla nooni lislaam nooni diine ànd ak moom di ko gàllankoor ci lu ne fu leen yóbbu ko fa lu ne ñu def ko ko te kenn mës a dégg mu saalit mbaa mu jàmbat jëme leen ñoom boroom rek lay ñaan di dellu ci moom ba sul xëy may ko ndam kon xam lañ ci ne lu way bëgg a sottal bay boo nga sukkandiku ci muñ waaye leneen loo def dangay feeñal sa bopp nit ñi xamee la ci te du teel yàlla bëgg rek ay am kon am na solo nit ñi bàyyi ko xel ci seen dund waaye muñ mooy xàmmee jullit ak ku dul jullit doomu aadama yi mën a wax ne gëm yàlla jullit laa man gëm naa yàlla nit ku ne mën na ko wax waaye bu aw tiis feeñee rek ñi gëm yàlla dëgg-dëgg ak ñi seen gëm yàlla kooj dañu daal di feeñ waaye bu jàmm rekk di am xéewal rekk di am ku ne mën naa wax ne man jullit laa kenn gënu maa gëm yàlla waaye tey wéeru di képp bu daloon nit léegi nga daal di xàmmee ki gëm yàlla ak ki gëmul yàlla am na koo xam ne luñ ko ne boo ko defee wér donte lu lislaam tere la noppi na ngir def ko waaye ki gëm yàlla moom day xam ne yàllaa ko teg wéer gi wéradi gi moo ko mën a teggi dara du ko jaral jëfandi xëtt ndigal yàlla ngir bëgg a teggi dogalu yàlla te ñu bari ci noonu nag danañuy xët ab ndig ndigal ngir bëgg a teggi dogal ñàkk xam moo koy waral kon bokk na ci li liñ xam ne muñ am na solo dafay wane ne nit ki gëm yàlla mat na ku la gëm na gëm yàlla moo la daq muñ ma kaana allahu liyadara almuminina ala ma antum alayh xata yàlla nee na du bàyyi nit ñi nii rek ñu ne gëm naa gëm naa gëm naa faaw mu teg leen i nattu ngir mu leer ci nit ñi ñi ne gëm nañ dëgg-dëgg ak ñi nga xam ne dañuy woote ngëm waaye gëm yàlla dëgg-dëgg nekkul ci ñoom yàlla nee na faaw mu xar-xar leen kon bokk na ci tiis yi wàcc ak nattu yi suñu borom daal jublu ñu xàmmee gëm ñi gëm yàlla dëgg ak ñi ko gëmul bu ñàkk ñëwee wala wéradi wala tumuraanke nga gis koo xam ne lépp lu mu bañoon da koy nangu tàmbalee saali tàmbalee yuuxu gis koo xam ne nag daan dégg rek bu tiis wàccee ak bu wàcce gu ñooyam ci moom doo ko xàmmee foo ko fekk maa ngi naan alhamdulilah kon am na solo mu muñ ndax dana tax ñu xàmmee ki gëm yàlla dëgg dëgg di gëm yàlla ak ki nga xam ne gëm na yàlla ci kaw waaye bu ngelawul tiit tiis ñëwee wala ngelawul ñàkk ñëwee rek yóbbaale gëm yàlla ñooñu ngay dégg bu ñu wéradee mbaa ñu jaxasoo di dem ci jabar di def lu ne ngir bëgg mucc ci yooyu te xamul ne lépp ci loxo yàlla la nekk su la yàlla tegeeb nattu nga dem di ko jéem a saafara loo xam ne yàlla da ko tere yàlla da lay gën a jëppi nga yor bàkkaar te du tax la ngay saafara saafara boo nopp muñoon nag delloo lépp ci sa borom saa yu waree teggiku dana teggiku te buy teggiku ay xéew lay àndal ndax yàlla li wax du jóom du du dañ te nee na yàlla mag muñ ko sa mujjug muñ xiw xeewal lay doon yiw lay doon waaye soo jàmbatee nag ci xeeti jàmbat yi am suñu borom dalay seetaan boole la la la nga yaakaar dem ci moom mu boole leen seetaan nga ami bàkkaar te sa soxla du faju loolu mu solo te yonent nee na lu mat a dalal xel man yuridillaahu bihi xayran yusib minhu Ibrahima alayhi salaam nee na ku yàlla namm ci moom aw yiw dana ko tegi nag kon dafa mel ne jàmbi bi aw tiis wàcce ci boppam sax daa war a bég xam ne yàlla boole na ko ci ay xejjal loolu la Sëriñ la radiyallaahu anhu jàngale bi mu tànnee bis bi nga xam ne ci lañ ko teg natt bi boole ko ki noonam ne moom bis boobu lay woote di ci sant yàlla moo di ne ndekete buñ lay nattu dañ laa bëgg yàlla du nattu kum bëggul yàlla du nattu kum bëggul ida araada bi abdihi xayran ibtalaahu wax na feneen ne inna izama aljaza maha izami albala nee na ak fay nu aw tiis gënee metti gënee tar noonu la yool ba ëppe ku la gën a metti ay nattu fii ci àdduna bu yowmal xiyaamee da nga ko ñëwee loolu ku ko xam bu aw dikkee doo sali doo jàmm sëriñ bi wax na ci masaalik ne ñi amoon ay nattu fii ci àdduna yàlla di leen nattu ñu muñ muñ gu rafet bu yowmal xiyaamee ñi amutoon nattu daan dund ci xéewal mësuñu am yenn jafe-jafe bu ñu gisee ñooñe danañ ñee leen ñee ba buñ sañoon seenu yaram daggutoo ngir aw tiis ndax tuyaaba ji bari ak xéewal yu bari yi ñooñe di am te yow mi amutooni nattu ci àdduna doo ko am kon mel na ne ku yàlla di teg aw tiis dafa laa bëgg-bëgg la yiw moom loo wax ne inna maa azam inna izamal jaza maa azamil bala wax ne wa inna allaha taala ida ahaba qawman ibtalaahum fa man radiya fa lahu rida wa man saxita fa lahu saxat yàlla ne yonent bi aleyhi salaam nee na sunu borom su bëggee aw nit dafa day wàcc ci seen biir ab nattu ku gërëm nattu ba yàlla tànn la bool la ci xejam waaye ku mer jàmbat nattu bi mu naqari la nga di ko xultoo nga ñaxtu sunu borom mere la kon ndekete aw tiis wàccee ci ay jaam ñaar ñi ci génn ku yàlla gërëm sant ko bég ci moom ak ku yàlla mere ki yàllay mere mooy ki nunguta muñ jàmbat di saalit waaye ki yàllay bég ci moom mooy ki jëfandikoo moom kon am na solo lool ñu xam ne bu tiis wàccee bunt bu ñuy yéega ci yàlla la waaye lu ñuy jaare di am ay ngëneel ak daraja kon ku ko muñ bu jeexee nga bég bokk na ci liy wane ni muñ am na solo lépp lu baax lu amal njariñ nit ci àdduna ak alaxira muñ mën na ko jural lépp lu nit di wut laa wax ci yiwu àdduna ak alaxira muñ gu rafet mën na koo jox te gaa ñu baax ñëpp foofu la jaar yaa ayyuha alladina amanu stainu bi sabri wa salaat inna allaha maa sabirin wala yajziyanna allahu wala yajziyanna alladina sabaru ajrahum bi ahsani kon muñ dana tax nga am maayatullah yàlla ànd ak yow di la sàmm di la aar guddeeg bëccëg dootoo ragal dara dootoo faale kenn lépp sa sa lépp ci loxo yàlla lay nekk mën a muñ dana jural jàmbi loolu mën a muñ dana tax jàmbi yàlla fay ko fay ga gën rafet bu ëllëgee mu am ci tuyaaba loo xam ne ku dul moom danga ko ñëwee muñ dana tax bu ëllëgee yàlla tabal ko aljanna be defal ko fa ay bernde wa jazaahum bi ma sabaru jannatan wa xarira Abu Hurayra nee na ci am solo muñ gis nga jaam bi ay nattu di dal ay ay nattu dana topp jaam di ko topp di ko fóot di ko fóot ba mu set wécc ba benn bàkkaar du ko dese buy faatu tabbi aljana day sedd wécc dara du ko yóbbaale te yéen alayhi salaam moo wax ne maa yazaalul balaau mumini wal mumina fi nafsihi wa waladihi wa maali xatta yalqa allaha taala wa maa alayhi xatiya nee na ay nattu lu dañ di dal jaam bi ci boppam ci doomam ci alalam lu dul ne da daje yàlla fekk set na ci ay bakkaar maanaam yàlla dana teg ab jaam ay nattu ndekete da ko bëgg a fóot am nay bàkkaar yuñ def te xëy na yàlla dimbaliwu ko ba mu tuub ko te bàkkaar moom boo ko tuubut faaw ñu seet ko yàlla ci mbaaxam teg laay nattu ak ci fii ci àdduna ndekete ma ngi lay fóot sooy faatu tabi aljanna ndax doo dese benn ñawte kon loolu day wane ne lu am am solo lu mat a bàyyi xel la euh, soxna Aïcha radiyallahu anha nee na mastama laaj yonent bi ne ko waaw mbas li ñuy wax mbas mooy xeeti musiba yi jekki-jekki di dugg ci ab ab dëkk wala mu dugg ci barab laaj ko daal bu amee lu war a am lu ñu war a def nee na yonent ay salaam ne ko mbas de foo ko fi dégg mbugal la mu yàlla di yónni ci ay jaamam mbugal la mu xam ne yàlla ko yónni ñu ko neex nag la koy mbugale waaye nag dana doon yërmande ñeel jullit ñi moom ne ko nag amul benn jaam boo xam ne dana ne ci barab mbas dugg fa mu sax ca dëkk ba bañ a génn muñ te lépp mu delloo ko ci yàlla boromam xam ne lépp lu ko dal ci yàlla lay bàyyi ko lu dul ne yàlla dana ko bindal yoolo ku shahid nee na bu aw tiis wàccee ci barab boo xam ne ni ñëpp dañuy ragal yow alayhi salaam ne daa bëgg jullit bi moom bu mu génn barab boobu dafa toog ndax lan sàmm pas-pasam ndax daw bare na léeg-léeg luy xew ñu ne barab sàngam nangam dafaa xew nit ña daw bëgg a génn foofa mbokk yi nañu xam ne laa nii xadarun min qadar moytu mënta musal kenn ci dogalub yàlla moo taxoon yonent ne bu aw tiis wàccee ci aw nit ñoo ña fa nekk buñ génn waaye ku fa demul bu fa dem moo tax léeg-léeg tiis daam ñu tëj ay frontière loolu charia la l'islam moo santaane ne yonent sa moo ko wax bu mbas nekkee ci barab ku mu fa fekk bul génn waaye ku fa fekkul bu fa dem moo xam ngeen lu tax mu di ko santaane bëgg a sàmm pas-pas yi nit ñi ndax ku jóge fenn dem fa bu la dara dalee nga ne maa ko teg sama bopp su ma demutu du ma dal te wallaahi boo toogoon sa kër mu dal waaye day bëgg kenn ku ne toog fa nga toog ba bu tiis wi ku mën a fekk fenn dal la nga xam ne ci yàlla bàyyi ko moo tax mu ne nag bu aw tiis amee nit ki yëg ko toog bañ a génn barab ba xam ne tiis wi lu mu bari bari lu mu rëy rëy la ko cay dal mooy la yàlla na mu musiba mu ne wàcc na ci barab waaye bàyyi fa ay nit te ñooñu defuñ dara lu tax ba leen fa bu ngeen amee seetlu mbokk yi xew-xew yi bari yi am ñaari ñi gën a néew doole nga xam ne dañuy bàyyee seen bopp rek ak yàlla duñ jëm dara ñoo ciy gën a mujj xool leen lu gën a bari accident avion yi am ñi ci gën a bari ñi tey mucc ay liir la ñu doon ñi nga xam ne moom dañuy bàyyi amu amul sax lu ñu jéem a moytu waaye ñaara ñi jéem a jaar ci ay volontaire ak rëj li ci ëpp bu musiba am ñooy loolu kon ñoo xam ne bu aw tiis amee na ñëpp xam ne comme dal yàlla la nekk ci barab bi tiis wi nekk du tax mu dal la daw barab bi génn du tax mu nga mucc ndax lan qul lan yusibanaa illaa maa kataballaahu lanaa jullit loolu lay teg ci kanam yonent alayhi salaam wax soxna Aysa ne ko nag su mbas wàccee ci barab ku toog muñ ngir gëm yàlla googu boo faatoo àtteeb shahid te shahid mooy koo xam ne amul fi mu jaar àjjana lay jëm jërul sànq jërul ñaana jërul jullee ndax moom àjjana lay jëm li ñu defal nit ngir bëgg yàlla yërëm ko sax soxlawu ndax moom garanti nañ ko àddina yooyu ay salaam nee nga xam ne bu aw tiis wàccee ci barab dafay nekk muñ du daw du salit ndax day xam ne lu tiis wi rëy rëy yàllaay nam mu dal ko su wax feneen ne sama jaam boo xam ne dafa gëm yàlla awma lenn lu ma koy fayee su fekkee ne damaa fekk ki ko gën a jege ci xolam ma faat ko rey doomam wala soxnaam wala kum fonk lool ci xolam ma xëy rey ko nee na mu muñ muñ gu rafet xam ne yàllaa ko bu teg borom bi nee na kooku duma ko fayee bu ëllëgee lenn lu dul aljan mooy ne képp ku ma teg ab natt ci sa njaboot wala loo fonk nga muñ ko muñ gu rafet boo faatoo du ma la ci fayee lu tabal aljan kon day mel ni muñ moom am muñ kat bu dëggoo mu leer ko ne muñ kat la. bay boo xelam dal xam ne faatu moo ko tàbbi aljana képp koo xam ne muñ kan nga te muy dëgg ci yow lu xew-xew bu mën a ñëw nga ànd ko muñ bay boo sa xel dal xam ne faatu moo la te tàbbi aljana waaye muñ am na solo mbokk yi ndax dana tax yàlla tànn la wa ay minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru am na ñoo xam ne borom bi nee na bañ muñee muñ gu rafet jaar fu ñu war a jaar ci laa leen tànne def leen ay njiit ñu ne ci kanami nit ñi sunu kilifa yu tedd yi misaal lañ ci ku ngeen fi dégg tey moom ab cër ci yoon wi wala ci diine ji ñëpp teg ko ci kanam bàyyi ko xel bàyyi leen xel ne muñ na lu yàgg yàgg loolu door ak si ci moom ne ci lam war a nekk yam ci lam war a yem ba sunu borom indi atteem tey lépp na ci loxoom xalif bi ñu nekk xafisahullahu taala wa rahmatulah Seydi Muxtaar misaal la ci ay at ginnaaw nit ñu bari xamuñ ko loolu ak mën a muñ la ne ci la nga war a nekk ne ci la la war xam ne lépp lu ak si ceew yàlla dana ko dogal jéem wane sa bopp jéem a feeñal sa bopp jéem def lenn xanaa ne ci li nga war a ne te xam ne borom bi dara umput ko loo war a agsi si ceew faaw mu agsi loolu mooy njëmbaxtanu muñ ñooñu la yàlla wax ne dinaa leen def ay ilimaan ndax seen muñ googu wa ja'alnaa minhum a'immatan yahduuna bi amrinaa lammaa sabaru kon am na solo ku muñ mu won yu wala fi wax sëriñ bi tënk njariñ yi nekk ci muñ ci ay bay di néew wax ne la alaman na ann li sabril jamil fawaidan adidatan inda al jalil muñ bu rafetee njariñ yu bari mën na caa jël bokk na ca dana musal jaam bi dana ko fajal ay aajoom fii ci àdduna ko wala dana ko may ay daraja dana tax mu not ay noonam dana tax mu jiitu ay moroomam dana tax yàlla tagg ko dana tax yàlla bëgg ko dana tax yàlla bindal ko tuyaaba dana tax yàlla bégal ko dana tax yàlla daf koy xéewal dana tax yàlla yërëm ko dana tax bu ta bu dee bu faatoo tàbbi yooyu sëriñ bi tënk na ko ci ay bayit min han najaatu wa qadaawul xaaji huna wa hënna duuna listidraaji wa naylu miknatin gadan wa galaba ala al ida fal tasbiru ya talaba ba bay di jeex loolu day wane xéewal yu rëy yu am solo yi nekk ci muñ yoo xam ne mbokk yi kenn ku ne ci noonu kon war naa jël muñ def ko muy ngànnaayam jamono du dëkk ci neex paw muy neex ko naqare kon su boobaa ngànnaay liñ mën a jàmmarloo métti di mooy muñ bu ko defee nag ay xeet la am moom muñ yi ñi muñ mën nañ koo tënk ci ñetti mbir ci ñetti mbir noonu ko sëriñ bi waxe woon ne baatub muñ ci arab ñetti xaraf lay àndal fii an ak ala yooyu bi ci njëkk mooy muñ topp yàlla sabru ala taa mooy sunu borom moo ñu bind digal di ko topp ku mënta muñ du mën topp yàlla ku ngeen gis mu nekk ab toppkatu yàlla góorgóorlu ci jaamu yàlla xam leen ne ku mën a muñ la ndax da nga muñ bànneex yu bari misaal bi ma ci joxe tey fajar julli fajar mën na la fekk ci nelaw fekk la ci nooflaay mu sedd guyy metti lool waaye boo nee muñ yooyu yëpp da nga koy xam ne wuy ji ndigal yàlla muñ yëpp ba def ndigal yàlla ci waxtoom waaye bu amatu muñ danga nga fay nekk di laytoo daa sedd ak daa nangam ak daa nangam ba waxtu wa raw la yiw bari raw la nga gàddu bàkkaar kon topp yàlla muñ ci kaw topp yàlla am na solo te topp yàlla nag buñ ko waxee mbokk yi lu yaatu la xeeti jàmm yàlla yëpp dugg na julleek woor ak asaka asaka lu mel ni alal tey jaam bi mën a muñ moo mën a génne asaka ndax yaa moom sa alal sonn lool xëy na ba nga koy wut ñu ne la waaye lii nag moom àq jàmbur la jël ko joxe soo mënta muñ doo ko naka noonu ndimbal yi war ci asaka ji nga war a dimbale ñu néew ñu doole war cee dimbale say mbokk war ci saraxe war ci liggéeyal yàlla ku mënta muñ mënul lool am na koo xam ne li koy neex mooy lal alal ji ne ne ci kanamam mu di ko xool mbaa mu denc ko ci kontam waaye soo mënee muñ bu yàlla soxlaa nga génne bu mbokk soxlaa nga génne bu diine soxlaa nga génne bu réew soxlaa nga génne loolu ak mën a muñ la kon topp yàlla mën a muñ muñ soxla na muñ topp yàlla soxla na muñ naka noonu bu ñu woote woon jihaad tey nga xam ne bakkan mën na caa des loolu it ku mën ko muy mënu koo del kon xeeti ndigal yëpp yëpp foofu lay dugg waaye jëflante sa digganteeg nit ñi su muñ rafetul doo ko man jaam bi su muñut muñ su su mënta muñ muñ gu rafet rafet du mën a jëflanteeg nit ñi ndax sa jëflanteeg diggante sa moroomi jaam laaj na ay xaq yu bare bare yoo xam ne faw nga mën a muñ ngir nga mën a toggoo yooyu naka noonu woote jëm ci yàlla ab jaam li mu xam ci lu baax dañ koy sant mu di ko jàllale dañ ci dégg lu ne dañ lay dëkkal fu ne waaye mën a muñ mooy tax doo faay la ñuy wax watawaasoo bil xaq wax watawaasoo bi sabr loolu melokaani jurit la wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha loolu la borom bi santoon yonent bi alayhi salaam sant ko jurit ñëpp dañuy wax sax ne borom bi li jëf ju baax di am am solo muñu ko jiitu dafa wax ne illa alladina sabaru wa amilu salihat foofu daa jiital muñ door wax jëf ju baax nga xam day mel ne balaa nit kee mën a jëf jenn jëf yu baax yi day fekk mu mën a muñ ba noppi waaye ku mënta muñ yenn mbaax yi moom mënoo ko mënoo mel mënoo koo def kon muñ am na solo mbokk yi ndax yooyu wax yépp kon lépp loo xam ne ndigalul yàlla la daal nañu xam ne bokk na ci liñ ñu sant ñu jéem a muñ la ca nekk ci ay coono ndax daf ndigal la ci la sunu mucc nekk ci la sunu texe àdduna àllaaxira nekk waaye lay tax na nga mën a def ndigali mooy faw nga mën a muñ kenn ku ne ci noonu ya yàlla digal su mënta muñ du dem góor ci biir këram su mënta muñ du yor kër bis bu yàlla sax muy dégg lu ko naqari di ko gis ñu di ko def waaye bu muñ muñ nga ci ko jàllale soxna ci biir kër yi su mënta muñ du fa yàgg kon mu mel na yu baax yépp soxla nit ki di ko muñ kenn ku la mën a wax ne la maa ngi dund àdduna aw ma naqar aw ma mettit aw ma jàmbat amul nit ñi fi ñu rawantee mooy ci dàq muñante da gis koo xam ne waxtu woo ko gis ma ngay ree ma ngay bëgg nga defee ne amuti jafe-jafe fekk moo ko ëpp ëppale ñëpp waaye daa xam boppam gëm yàlla am rafet lu mën a dikk muñ soo xasee jël muñ daf ko muy sangaanaay aw tiis dootu mettali ci sa bopp kon loolu day jar bàyyi ko xel baax a baax ñaareelu xeeti muñ mooy muñ mooy yàlla muñ mooy yàlla loolu it lu jafe la ndax mooy yàlla dafa yomb yi jëpp dañuy neex dañuy dëpp bakkan seytaan da ci xéer nit ki day yomb day jàpp ne léegi nag faw nga mën a muñ ba mooy yàlla ko nga sori ko waaye li gën a bari ci xeeti mooy yi lu yomb lay doon ñaare mooykat yi sax laabiir gi ñuy laabiir ci mooy duñ ko laabiir bu ne ci lu baax su ko defee nag ki mën a muñ moom mooy muñ ba du mooy yàlla ya ci nekk yëpp mu jëm koo taj loolu nag day ëmb lépp lu xaraam am lépp lu ñu taree donte lu ñu sib rek la waaye ak sax ci ay xalaat da muñ ba ay xalaat yu ñaaw sax doo ko xalaat naka noonu xeeti jikko yu suufee loolu it mbokk yi lu mat a bàyyi xel la ku mënta muñ mooy yàlla dana jafe nga jariñu dana jafe nga mucc kon faaw góor góorlu xam ne lu yàlla tere lu ne njariñ nekkatu lu yàlla tere lu ne njariñ nekkatu loolu su ko jaam ñi xamee dana leen dimbule ci ñu mën a góorgóorlu ba lu yàlla tere lu ne buñ ko romboy sori mel na yonentu yàlla yusuf alayhi salaam adduna dëgmal ko soxna buur woo ko ci këram tëj ay buntam di ko woo ci boppam day mel ne sabab yëpp daje woon na ngir mën a moy waaye mën a muñ mën a dékk moo tax mu gàntuloo lépp ba yàlla tànn ko faye ko nubu wëgga yokk ci def ko mu nekk buur yokk ca teg mu nekk buur loolu mën a muñ moo ko muñ mooy yàlla ñu xam ne kon ak njàmbaar foofu la rek li benn xakim doon wax ne bul yéem bul yéem ki ay musiba dal jërut yéem waaye ki mat yéem mooy koo xam ne daa fexe ba mucc masalan tey nattu adduna yi bakkaar ni mu yombee am fi ne nee na bul gis koy def bàkkaar nga di ko yàdd ak nag waaye ki jar yéem jaaxal yéem mooy koo xam ne fexe rek mucc ci bàkkaar yi laa taajaban min haalikin kayfa hawa bal faajaban min kay fa naja loolu day firnde ki fexe ba të mooy yàlla të bàkkaar te tere yàlla yi kooku mooy ki jara naw ndax dafa na jàmbar gu rëy muñ na ay tiis yu metti bëri nag seytaane ba tàyyi bëreeg ba kanam bëreeg àdduna kon foofu it nañu xam ne soxla nañ fa mën a muñ ab jaam boo xam ne tey daa wéet borom bi ne ko woor tey jii na ko woor mu wéet ne ci néeg ndox ne fa kenn nekku fa kudd yàlla ak moom mu mën a naan ba màndi génn ne cell kenn du xamal dara kooku mën a muñ mooy tax mu mën a woor su mëntoon a muñ faw moo yàlla lekk mbaa mu naan te su boobaa mën naa bañ a feeñ ci yooyu yëpp day firi kon muñ ba duñ mooy yàlla am solo la waaye yi ëpp solo yooyu yëpp nag mooy muñ fi sarra yi wa darra bu xeewal ñëwee nga muñ bu aw tiis wàccee nga muñ yooyu mooy yi gën a jafe mooy yi gën a am njariñit nag muñ mbégte aku naqar léeg-léeg sax xëy na mu jaaxal nit nan la ñuy muñ mbégte waaye mbégte lu jar muñ la bari na ñoo xam ne lu leen dal ne ci jàmm mu leen ko teg dañoo ne ci jàmm fàtte yàlla fàtte lépp fàtte warteef yi leen war muñ ci jàmm nag mooy jàmm ji nga nekk lépp lum laaj sa digganteeg sa borom wala sa digganteeg sa moroomu jàmm nga bàyyi ko xel boo amee alal say soxla it di faju nga muñ ba xam ne alal ji àq yàllaa ngi ci aqi foqaraaw yaa ngi ci aqi mbokk yaa ngi ci aqi diine ngi ci nga génne yëpp saa bu waxtoo jotee nga génne ko ak xol bu sedd njëkk kenn di la ko laaj bañ ñaxtu bañ a xultu su boobaa yaa ngi muñ yaa ngi muñ ci mbégte ndax yaa ngi ci mbégte waaye li mbégte mi laaj ci àq yàlla ak àq mbokk yaa ngi koy sàmm bari na koo xam ne bu amee wér-gu-yaram dara manqué wu ko dara du ko def bis bu xëyee tëdd bis bu yàlla sàkk day biddanti kooka mi ngi ci xéewal waaye muñut xéewal gi ndax su muñoon xéewal gi su noddukat noddee ne ko hayya ala salaati hayya ala falaa dana bëreeg ba kanam ba jóg jaamu yàlla kon muñ mbégte lu jafe-jafe la waaye lu ñu soxla la mbokk yi lépp lu yàlla wërsëgal nit ñi ci alal jox ko ci njaboot war naa mën a muñ ak njaboot it yàlla da lay dénk lu ne na ci seen biir waaye nga dékku coono yi lu njaboot gi soxla nga taxaw ca waaye doo ñaxtu doo xultu doo jàmbat liñ lay laaj mu mett bis bu set ñu di la ko laaj bi bu set ñu di teg ay nattu sa di sedd ngay békk xam ne am na ku bëgg ak njabooti mënu ko am yaa mu muñ su boobaa waaye bu fekkee bis bu yàlla sàkk ngay jàmbat li ngeen may laaj mu awma ko dimbali leen ma noppal leen ma su boobaa santoo yàlla gërëmoo yàlla waaye santal yàlla ñi la jox njaboot te am na ñu ko bëgg mu xañ leen ko kon bëgg nañ ko am njaboot ngay muñ njaboot gi seeni bang-bang sëriñ bi waxoon na ne yoon yu baree bari yu mën a yóbbu nit ci yàlla mi ci njaboot yoon wu ci gën a suufee gën a jege mooy njaboot gi ñor la su la ñoree rek nga bàyyi leen xel waxtu wu ne ngay xool ak yow rek sa digg ñoom nga di ko taxawee ubbi nga yoonu aljanna bokk wàccu da nga dem insha allah kon ku yàlla dénk njaboot war naa bàyyi xel njaboot googu ci muñ ya àndal nga gàlloo naka noonu bu la yàlla mayee jàmm ñi ngi ne fii jàmm luñ bëgg a taxaw nañ ko taxawal bu julli ji tey mën a dugg jàkka julli génn toog di waxtaane suñu diine di jokk sunu mbokk am na suñuy mbokk jullit yoo xam ne soo génnee ci mbedd mii tey bal fete sa kaw xool leen mbokk yi centre Afrique gii afrique yii fan yi ñu toll la fa ay jullit di daj nit mënu ko nettali nit kon yaa ngi ci jàmm yow santal yàlla te muñ ñaanal ñooña lu yéem moo fa xew donte jullit ñi duñ ko bàyyi xel bokk na ci leen yàlla nattoo liy xew ci seen biir duñ ko jéem a yëg duñ ko bàyyi xel Centrafrique jamono yi ñu toll mbokk yi la fay jullit di daj mburu daju ko ci taal ay nit ñuy génn yor seeni ngànnaay di wax ne dañoo xiif nit dañoo xiif jullit man seetaan naa benn image boo xam ne ay ay dañ leen laaj benn chaîne bu nekk France moo ñëw ñu ne ñoom nit dañoo dañoo namm yàpp ni yàpp yàpp jullit dañ koy rey lekk ko waa ji doon nee na nee na dem na ba tiim leen ñu lekk aw yàpp yoo xam ne nee nañ ko yàpp nit la waaye nee na loolu mënu ko génne ci télévision nit di ko gis moom ñoo xam ne dañuy bàkkoo ci mbedd mi ne dañoo xiif nit ndax nee nañ yàpp yàpp jullit jullit yàpp jullit da dañ koo dañ koo xiif ndax nee na moo dàqee ci des xoola googu mbot mbokk yi sa mbokki jullit ñu ngi koy dund yow yaa ngi ci jàmm foo bëgg a xëy xëy fa la bëgg a doxi ko ña nga mujj ak ñoom di leen génne capital ba di leen ci àll bi ci defuñ dara lu dul ne ay jullit loolu mi ngi xew kon ñu xam ne ku ne ci jàmm war ngaa sant yàlla jàmm jooja waaye muñ ndax day ànd ak i bang-bang la mu laaj ci sant yàlla ci taxaw ci ndigal yàlla yi ndax jàmm ji mën a sax bàyyi leen xel li mu waxoon wa makka fal yaabudu rabba hada al bayt alladi atamahum min juu waaye wa amanahum min xaw bu xéewal amee jàmm am la war jàmm bi ci muñ mooy mu sant yàlla xéewal ak jàmm bañ koo fooyee bañ koo dundi ay caaxaan waaye jàmm am na rek guddeeg bëccëg yaa ngi tëgg ko fecc yaa ngi tëggi làmb yaa ngi wootee musique ne ci caaxaan rek fàtte yàlla sa borom bi la bindoon te xam ne bu ko neexoon ci waxtu woowu mu xañ la jàmm dootoo tal dara lekk sax doo ko tal ba wutul ndax am na ñu mel ne yow ñoo xam ne yàlla xañ nattoo na leen ñàkk jàmm ba tëruñ dara kon yow mi am jàmm woon nga muñ li yàlla laaj ci jàmm jooju nga def ko waaye su amee wér-gi-yaram wér-gi-yaram ñu dal saa waxoon ne ñaar yi bokk na ci wér-gu-yaram xéewal la gën a ci nit ki nikkul ko xam ki ko ñàkk rek koy xam kon yow jaam bi soo wéree yàlla xëy yeewu ci nelaw sa ci répp nangu fenn mettiwut fenn limuwut war nga sant sa borom muñ ba doo def lu muy tere waaye doo wuute ndigalam ndax sant ko yàlla wér gu googu waaye doo ko fooyee di ko dund ci ay caaxaan doo ci def leen lu am loolu it ñàkk sant yàlla la ñàkk muñ la ba ci sax karaama nit ñu baax ñi dañuy wax ne bokk na ci melokaani gaa ñu baax ni dañuy muñ ay karaama bu la yàlla defee ngay nit ku baax lay lekk muy feeñal ay karaama ci sa loxo gaa ñu baax ñëpp dañ koy nëbb dañuy def karaama gu rëy ba noppi di làqu fu ngeen gis koo xam ne day woote lu mu bari lu mu man mën a jommal nit ñi waxe ne day defi karaama daa man lu ne bay boo seen xel tey ci moom karaama ñi ko man dëgg dëgg dëgg dañuy làqatu buñ koy def te gaa ñu baax ñi sëriñ bi loolu la wax ci masalik nee na bokk na ci mën a muñ karaama yi yàllay feeñal ci yow nga di ko làq bu kenn gis nit yàlla yi dañuy wax ne mbërëg karaama muy mbërëgum góor yàlla yi ni mbërëg mel ci jigéen nga xam ne bu ko dikkalee da koy nëbb ba kenn du ko yëg daanaka nee na noonu la karaama war a mel ci góor yàlla buy feeñ du du ko jublu léeg-léeg ñu jékki-jékki soxla ko ngir xettali nit wala li dara waaye duñ jublu rek toog di wane ne kaay leen ma wan leen i karaama kon am cër ci yàlla waaye bañ koo feeñal loolu bokk na ci mën a muñ waaye bari na ñoo xam ne leen yàlla na tool lépp luñ man suñ toogee yow bala ñoo am jàmm danañ la ko wax lépp lu ñu xam buñ toogee bala ñoo jëkk danañ fexe ba nga xam ne xam nañ xam ne àdduna faw ku fi ku fi tekki dara wala nga bëgg fee soxal dara da nga mën a muñ ku mënta muñ du mënta sottal dara kon yàlla na ko yàlla defal waaye ndaw ñi lay bàyyi loo xel ne ñëpp war a muñ waaye ñoom rawatina ku dëgmal àdduna xamal ne ngànnaay li jiitu muy muñ yu bari yi xew ci biir ndaw ñi yàkkamti moo leen ko teg te wax nañ yàkkamti day gàllankoor mën a muñ dal leen te jaar fi ngeen war a jaar sàkku li ngeen war a sàkku ci leen ko war incha allah lu tax jot yàlla noonu yàlla dimbale maa ngi jégalu tey baalu xaq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi sant ci defin wi am na solo lool xam naa li ñu ñaan rek mooy suñu borom defal nu nopp yu ko dégg ak xol yu ko taatan defal ñu kàttan buñ ko mën a jëfee. ndax jamono ji ñu toll njàmbat yi bëri na lool comme niñ ko waxoon ci njëlbéen gi ba tax na daal ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci waxtaan wi defin wi rafet na lool te leeral na ñu ne ku muñ ku mën a doon la di ak mujjam ëllëg rek mooy am tawféexi suñu boroom te ñun ñëpp xam nañ ne loolu rek mooy jubluwaay bi ab jullit bëgg mooy am tawfeex suñu boroom am ngërëmam ëllëg xam naa liñ ci taaleex du bari ndax dafa am suñu mbokk mu fi teew mu sëriñ Cheikhouna Bousso ñu bëggoon xam naa waxtu wi sax jàtt nañu lool ndax xaw naa guddi waaye ñu bëggoon rek mu sànni ci ñaari kàddu lu néew néew taxliir ci tuuti loolu lañ doon sàkku ci moom suñ Cheikhouna boo mënoon a jege si rek sànni ci ay kàddu lu mu néew néew bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi ginnaaw sant sunu borom subhanahu wa taala julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii di sant bu baax sunu boroom ci tawféexe gi mu ñu tawféexe ñu fekke ko te di ko ñaanit mu boole ñu ci jariñ xam naa ni ko sëriñ Mourtada waxe waxtu wi xaw naa xat te kàddu yi nga xam ne sëriñ Bakke Abdourahman fekke nañ mu jàllale ko muy bind yu leer yoo xam ne tolluwaay bu nit mën a toll ci diggante jàng jàngale lu tee soo ko fekkee te teewlu ko danga ci jële ay bind yu am solo ngir leer na leerin woo xam ne amul benn diggante bu ñuy laaj ab jubluwaayam ci wax ji joxe na ay bind ci muñ bind yu am solo yu jot sëkk yoo xam ne suñ njëlbeenu kàddu mooy ñaan sunu boroom mu defal ñu tawféex yi ñu mën koo jëfe te mu nangul ñu ndax mu ngi doon wax ci tomb boo xam ne tomb bu am solo la ci lislaam kon tomb bu am solo la ci ab jullit ndax rod na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni a sabru nisful iman muñ mooy genn wàllu gëm yàlla te buñ jàngatee wax jooju gis na keroog ca xaswatu badrin yonente bi alayhi salaatu wasalaam mook saxaaba yi bi ñu xeexee ba am ndam bi ñuy delluwaat ca kër ya saxaaba yi bokkoon na ci seeni bàkk bi imaanina intasarna sunu gëm yàlla ci lañu gañe te ndeke gëm yàlla googu genn walla ga mooy muñ te muñ googu feeñ na ci biir xaswa boobu ndax ku ne xam na ni li xew ci biir xasawaat yi te sayxul xadim radiallahu anhu lu ci bari mu di ñu ko nettali ci biir xasaayid yi la ca ëpp mu ñu ko doon waral ndax jaasi yuy dal ay fett yuy dal xeej yuy dal ay jëmm jug di ko dogale ngir rek bañ mu àgg ci ki nga xam ne moom la yàlla yónni te mu nekk ci seen kanam loola muñ moo ko waral te jàpp naa ni bari na ci saxaaba yi ñoo xam ne seeni garaat ci loolu lañ ko amee buñ ci doon tudd ay benn benn ki ñuy wax Abu Dujaana ku ne xam na ne xasatu Uhud jëf na ci digganteem ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne bu amutoon ak muñ du ko man talxatul xayri kasaalika jëf na ci loo xam ne su amutoon ak muñ du ko man ndax seen bali fett yu jëm si ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga ñëw wéer sa jëmm ci kawam bal yi di dal ci sa kaw jaas yi di dal ci sa kaw fett yi di dal ci sa kaw loolu ak muñ dëgg moo mën a tax nit def ko kon ñoom ci sababu seen muñ ngañaay luñ mas a am ci lañ ko amee waaye ci biir njàngale mi sëriñ Mbàkke Abdourahman joxe gis nañ ni ndeke muñ yeneen yonent yàlla Yuusuf jàngale woon na ni képp ku ragal yàlla te muñ loo jëf ci lu baax suñu borom nangu ko bi ko doomi baayam yi jëflanteek moom jëflante boobu ñu jëflante mu metti lool ci baayam bi ñu dikkee wax ba noppi lam ca teg mooy fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala ma ñu dellu jëlaat meneen mbokkam jaar moom fañ jaar moom ci coobare yàlla mu jaar ci yeneen yonent yàlla Yuusuf bi ñu dikkee waxaat ko ko lam ca tegaat mooy fa sabrun jamilu kon saa bu amee aw naqar rek lam leen di wax mooy danaa ko muñ muñ gu rafet sunu ndey sayyidatuna Aïcha mi mu tudd léegi ci muñam gu am solo ga ca la ko sunu boroom xañ waaye ci muñam gu am solo ga ca tuuma yañ ko tegoon ci hadisul ifk biñ ko tuumaalee ci digganteem ak Safwan bun al Muattil as-Salami muy tuuma ju rëy yoo xam ne nitu ordinaire rek ëppante na ak jëf jëf ju mel noonu rawatina koo xam ne dëkkaale bi yonente bi la alayhi salaam keroog bi mu demee ba metti lam wax mooy danaa wax la yonent yàlla yanqub waxoon ca bam ñàkkee doomam ja te mooy fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala ma tasifun kon ndeke ñoom ñu amee tuuma dañ koy muñ suñu amee jafe-jafe dañ koy muñ waaye nag ku muñ te ragal yàlla innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra almuhsinin loola moo leen may lañ am waaye kii nga xam ne ci biirum liggéeyam ci la lépp xewe ba ci jataayu tey jii muy cheikhul xadim radiallahu anhu bu ñu delluwaatee ci ay jaar-jaaram lépp lum am muñ moo ko may muñ ak njabootam muñ ab dëkkam muñ ay doomam muñ ay taalibeem ànd yàlla ak yonent bi alayhi salaatu ak alquran ànd ak ba am lim am ci kaw muñam gu am solo googu boo demee ci jasaau shakur al atuuf fi jawaabi abdillatif gis moom cheikhul xadim radiallahu anhu suy nettali jaar-jaar bu metti bi nga xam ne jaar na ko ci ndakaaru lim yëm lim ba noppi dangay gis ne yooya ku am muñ gu kawe gu àgg ca àgg waayu muñu gaay yu baax ya moom rek moo mën a muñ lu mel noonu te du saalit te ba mu fa jaaree muñ na ko muñ gu rafet sunu boroom defal ko ca lam ko ca defal kon bind bii nga xam ne sëriñ Mbàkke Abdourahmane joxe na ko te ñu di ko ñaanal sunu boroom guddal aw fanam te dolli ko ak wér te gën a leeral ab dënnam te defal ko taw féexi képp ku dégg kàddoom sunu boroom jubbanti la ca bind la boo am solo boo xam ne indi na ko ci waxtoom rawatina ci jamono boo xam ne ni ko sëriñ Mourtada waxe léegi njàmbat li bari na yuuxu yi bari na la ëpp ci lañ daan sàkku muñ nga daan tax ñu daan ko am muñutuñ muñ gu mel noona te loola bu ñu ko waxee mooy la ci solo mooy xam-xam te ku ne gis na Cheikhul Xadim lam wax ne mooy tax nit am ko bal rabbuna abdan saburan yulhimu waxuma la muñ waaye ku sax ci muñ doon ab muñkat kooku la sunu borom subhaanahu wa taala di jox xam-xam xam-xam nag nim gënee lu dul moom ci àdduna noonu la gën a jafee lu dul moom ci àdduna ginnaaw muñ a koy tax a am nag leneen lu dul moom it bu ko nit di wut faw mu muñ ni ko sëriñ bi waxee muñ ci bànneex muñ ci naqar muñ ci jaamu yàlla ba ci muñ sax ci mooy yàlla ba delloo ci masaalik même ki nekk ci lu neexut yàlla sëriñ bi nee na ko na nga fexe ba nag na ko muñ moom mooy yàlla googu kem lu toll ni bu sun borom doon fayantoog yow ci jëf jë war la caa tàbbal sawara diir ba nga xam ne da ko mën a muñ sunu borom sóobla ko ci sawara na muy gàtte na nga fexe muñ lu gàtte noonu ci ci mooy yàlla googu kon muñ wet goo ko jëmee mu jural nit ki njariñ boole koog na di ndigalul yàlla yaa ayuha alladina amanu sbiru wa saabiru dee leen muñ tey muñalante saa bu ki duggee ci kuréel boobu nag day dal bokk ci jullit ñi nga xam ne bi sunu boroom di lim ñi perte génne na leen ci te ñi nga xam ne wa tawaasaw bi sabr wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr kon leeral lu leer mën naa indi ak lëndëm te li sëriñ bi wax leer na nañ kaddu la yoo xam ne rek dañ koo sàkku ci ñun ñu doon mottali yéene waaye li ñu bëggoon a féetewoo mooy diglu ak ñaan sunu borom lépp lu fi te ñu déggu ko sunu borom defal defal ñu taw féexi ñu man koo jëfe te sellal jëf ja te sunu borom nangul ko te gaaranteel ñu ko ba doo dara dutu ko yàqati kon ñi ngi sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo taxawal bis bii di sunu borom nangu yëngu yi jotali ci yool bi mbooleem ña nga xam ne ñoo tax ñu di ko taxawal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh